bonjour merci d'être avec nous merci de nous rester fidèles jaajëfal leen yenn téléspectateurs yi internautes yi tey le mercredi 16 juin 2021 troisième numéro de la semaine ci li xew ci biir internet bi di leen jaajëfal jaajëfal bu baax rédaction bu télévision Futur Média ak euh, soxna Naata mbay mi leen doon euh, dégtal xibaar yi ci kàllaamay Kocc saa yu jeexee ñun équipe bu team li xew ci biir internet bi ñu nag yéen la moo tax à chaque fois équipe laay wax ndaxte euh, yu bari ci li ñuy jàllale ci émission bi ñu ak yéen ñoo koy partagé ndoo ensemble jaajëfal euh, téléspectateurs yeeg internautes yi li xew ci biir internet bi dañuy njëkkee ak euh, li nga xamante ne actuellement mooy video bi def buzz ci réseau sociaux yi këru cosaanu président Macky Sall mi nga xamante ne dafa nekk tournée fële ca ci nord du Sénégal gi ay Matam ak Podor ak mel. mu def euh, mu nekk ci tournée économique am ay ndaw yu mer te jaarul ci gox boobu ñu euh, daal di lakk këram tey presse bi ñëw na ci image yi yee nekk nii ñu daal di koy jëlee ci euh, waa IGFM www.igfm.sn bi nga xamante ne actuellement ci réseaux sociaux yi ñu bare nga koy partagé muy xibaar bi nga xamante ne xaw na jaaxal ñëpp ci internet yi wala internet yi mu nekk loo xamante ni aussi gis nañ ñi war nañ ko mën a partagé ndoo ak yéen jaajëfal bu baax waa IGFM rfm point sn lépp li nga xamante ne ay xibaar la yu wér te wóor loolu moo xew fële ca Matam ca euh, ay ndaw yu mer ci tournée économique bu président Macky Sall d'ailleurs euh, ci tournée boobu am na ab l'accident bu nga xamante ni eh, nemeeku nañ ko ci démb euh, waaye plus de peur que de mal ndaxte ñi ngi wax ne kii di sunu wayjur di Abdoulaye Mbaye Peex ak Modou Daara Modou Baara Dolli dañ ci ñi ngi woon ci oto bi nga xamante ni moo defoon accident boobu mi ngi noonu image yaa ngi noonu euh, di euh, mbay euh, sunu baay mbay peex am ci ay gaañu gaañu ci bopp bi moo nekk noonu waaye di koy gën a ñaanal yàlla wér ndaxte accident boobu ñenn ñi comme ni ñu koy gisee ci image yi nee nañ xawoon na doy waar waaye sant yàlla comme que génn nañ ci ak ay gaañu gaañu mi ngi am ci diggante axe Matam ak Ngiloñ nekk jege village boobu nga xamante ni ñu ngi ko duppee Wuduru doon nekkoon ci cortège yu président Macky Sall bi nga xamante xamante ni ab visite la lay amal foofu di ay visite économique mu ngi noonu euh, internet yu bari doon ko euh, partager surtout ci réseau social bii di euh, Twitter d'ailleurs dañuy des ak président Macky Sall mi nga xamante ni partagé na benn photo bu xaw a daw daw yaram ñenn ñi duppee ko ab chance la ngir nga dund ci àddina ba dem dajewaat ak ki nga xamante ni moo la tudd mu nekk loo xamante ni vraiment lu am solo la. Euh, Pierre Da Silva mi réalisé wan ñu poste président Macky Sall bi nga xam ne def na ko ci page Facebook am euh, ci tournée bi nga xam ne mi ngi ko doon amal foofu ca nord tournée économique bi ci fii ci euh, nord du Sénégal mu demoon fële ca Aéré Lao daje faak kii di Thierno Samba Tall di ko xamante ni def na ab témoignage ci compte Facebook am ko yàlla gudd fan ne kii moo ko tudd. chance la ndaxte internet yu bari ñu ngi koy partagé nee nañ lii boo demee ba ba mu am chance la nga dajewaat ak ki nga xamante ni moo la tudd ca ba ngay doog a gane si àddina mu nekk image bu xaw a daw yaram yal na ko yàlla may gudd fan moom Thierno Samba Tall euh, di koo xamante ni mën nañ koo jàppee way jur la ci président Macky Sall ndaxte moo ko euh, tudd ci ba mu gane see àddina image bu am solo la internet yu bari di ko partagé def ko statut WhatsApp lu am solo la moom président Macky Sall mi ngi ko partagé ci compte euh, Facebook am euh, bi nga xamante ni c'est officiel moom mu ngeen di gis noonu expliqué nañ leen compte bu officiel bi ni muy amee euh, lu bula loolu ngeen di gis mooy wane ni compte bi mooy bu officiel bi maanaam lépp lu ñu fi publier mën nañ jàpp ni lu am la ndaxte ñi équipe bi géré communication bi ñoo koy dugal en temps réel wala moom ci boppam. d'habitude bu fekkee personnalité la équipe bi géré ñoo koy euh, dugalal information yi en temps réel d'habitude information yi ngay gis euh, yu wér te wóor la moom la ñuy gis ci président yeeg euh, ñenn ñi nga xam ay personnalité lañu d'habitude réseau social bi Facebook wala yeneen yi di Twitter wala dara daf la ciy bàyyil benn ab vert bu bleu mandarga la boo xamante ni dafay wane ni fii lépp luñ fi publier bu amulee maanaam ñoo xamante ni dañoo euh, trafiqué compte bi mais lu wér la moo tax léegi seetlu ngeen presse beeg yu ni mel d'habitude dañuy sukkandiku ci compte yi nga xamante ni mooy compte euh, yu officiel yi loolu ab xibaar la bu président Macky Sall euh, daal di partagé ci compte Facebook am dem ba dajeek ki nga xamante ni moo ko tudd di Thierno Samba Tall ca Aéré Lao sociaux yi nag réaction yi bari na Facebook Twitter wala Instagram gis ngeen commentaire yi jot ñi ngi jot message yëpp ci suñu plateforme yëpp rawatina euh, suñu compte officiel euh, suñu chaîne YouTube bu télévision Futur Média commentaire yi dafay bari saa yu ñu dugalee émission bi rek gis naa ni euh, internet yu bari dañu ciy participer ku ci nekk di joxe sa xalaat lu am solo la mag ñi aussi des suñu ginnaaw ndaxte jili CSB bi nga xamante ni moo sponsorisé rubrique bi dinaa ci ñëw loolu question bi ak réponse bi nga xamante ni internet yi joxe nañ ko ci lañ bàyyi woon question bi nga xamante ni euh, Einstein lañ ko tuddee jili numéro téléphone am bi 33 822 47 00 wala 3w point csd point sn moom mi sponsorisé rubrique bii ñu duppee euh, question yi nga xamante ni moom la ñuy posé ci émission bi nee mag ñu bari dañ koy woo ci émission bi ci euh, numéro téléphone am bi di ko wax ci émission bi solo solo bi mu am mais surtout ni ñu ciy jàngee di ñu félicité ñun équipe bi nga xamante ni ñooy liggéey ci émission li xew ci biir internet bi man leen mag ñi ñu jënd ndax numéro téléphone bii du du numéro émission bi mais numéro Jili CSB mi nga xamante ni moo sponsorisé rubrique euh, bi ñuy euh, may permettre aussi ñuy jox loo suñu internautes yi ak téléspectateurs yi mag ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan aussi dañ leen di jaajëfal mais surtout ci seen kóoluteeg ci programme mu télévision bu euh, Futur Média jaajëfal leen. am na beneen video bi nga xamante ne aussi ñu ngi koy partagé ca université Cheikh Anta vidéo bu xaw a doy la. Euh, gaa yi ngi ciy commentaire nu ne ci réseaux sociaux yi ñu ne ab cours la wala réunion boo xamante ne amoon na euh, professeur ba di wax wala kenn ci responsable yi di wax étudiant bi ñëw nangu micro bi mu nekk vidéo boo xam ne ku nekk nga koy ñaawlu ci réseaux sociaux yi ñu dégtal leen ko juste après ñu ñëw. jaajëf mi ngi noonu vidéo baa ngi noonu commentaire yi ngi jóge fu ne ci réseaux sociaux yi ñu ngi gis ku ne ku ci nekk naan euh, xaw a ñaaw lu taxawaayu étudiants yi wala ñenn ci étudiants yi euh, mi ngi noonu ñun d'habitude du ñuy joxe commentaire dañuy joxe xibaar yi rek bàyyi leen euh, yéen ngeen commentaire ku ci nekk nim ko neexee waaye euh, jur na coow ci réseaux sociaux yi ku ci nekk di ñaaxaat étudiants yi ñu bàyyi violence yi mais surtout parfois ndaw ñi euh, degré de violence bi nga xamante ni fi lañ toll dafa dafa nekk lu lu lu am solo waaye tamit bokk na ci yi nga xamante ni moom la internautes yi di partager ci réseaux sociaux yi. Facebook la Twitter wala Instagram internet nag dafa yaatu du yem ci réseaux sociaux donte ci biir émission bi li ci ëpp lu ñuy partagé wala yu ñuy eh, jàllale comme ay xibaar ci réseaux sociaux yi lay jóge ndaxte internet yi ci boppam ñoo ñu koy partagé ak hashtag bii di suñu net di Facebook Twitter wala Instagram eh, wala plateforme yu groupe Futur Média yëpp gis ngeen ko miin ngeen ko actuellement eh, Facebook live bu télévision Futur Média laay xool xool seen réaction yi d'habitude li ñu fiy jàllale ci ëpp. yéen ñu koy euh, partagé moo tax ma xool live bi ba xam na euh, internet yaa ngi réagir question yi dina ñëw léegi ci kanam du yàgg léegi rek question yi ñëw ak réalisateur connecté Pierre Da Silva mu ñëw ñu jàllale question yi joxe réponse yi nga xamante ni bàyyi woon nañ ko fi démb baaxoo nañ di ko def bis bu ne euh, ñu njëkkee ak question image cachée bàyyi woon nañ fi benn image cachée démb voilà mu ngi noonu réponse baa ngi noonu internet yi ci boppam euh, ñooy joxe réponse bi réponse yi nag bari nañu bari dañ ko trouver le roi Sané nekk am origine euh, fii ci Sénégal baayam di sénégalais joué équipe nationale bu Sénégal di euh, Souleymane Sané nekk koo xamante ne kenn dootu ko présenté ci génération dorée mën nañu ko jàppee ci anne 80 yi jàpp 92 euh, le roi Sané léegi nag moom ma ngay football fële ca Allemagne démb d'ailleurs ci match bi doon dox ci diggante France ak Allemagne joué na ci deuxième mi bi moom le roi Sané euh, am ñaar fukki at ak juróom nekk koo xamante ni aussi ailier bu baax la nekk fële ca Bayern Munich donte saison bi xaw na xamewul demee noonu Manchester la gënoon am taxawaay mi ngi noonu. ñi ko trouver nag bari nañ moom waa Sané euh, di leen fàttali origine sénégalaise moo tax ñu defoon ko image cachée ñu ñëw ci question bi question bi nga xamante ni benn internet moo ñu ko posé daal di koy partagé ñu xool ba xam ndax euh, gars yi ñi ngi ci réagir maa ngi seen live yi ci Facebook bi Facebook live Instagram live di jaajëfal bu baax équipe digitale bi Adja di ko jaajëfal ci kolite euh, ci ni ñuy partagé en temps réel. Euh, li nga xamante ni moom la internautes yi di réagiré di leen ko jaajëfal indi ñu image bi nga xamante ni internaute ba ñu ko jox lu xaw a yéeme la nag pour nga def choix bi entre oto yi ban moo am priorité wan ñu Pierre da Silva xam naa dafay nekk ci jeu yi day commentaire ndoo ah en même temps voilà mi ngi noonu entre ambulance bi voiture présidentielle auto police ban moo am priorité donte situation yu ni mel yombul muy am ah am na ambulance waaw voiture police sapeur pompier voiture présidentielle ban moo am priorité lii nag dina com dina compliqué pour nga joxe ci réponse ah donte situation yu ni mel bariwul wala daanaka amul ci li muy am waaw priorité à droite wala priorité ci bon damay bàyyi internet yi réagir hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram image bi euh, benn internet moo ñu ko euh, partagé waaye lu compliqué la xam naa du yomb ku ci nekk di nga joxe sa réponse expliquer pourquoi donte en plus sens unique la yéeme na de lii lii est-ce que mën na ne sax loolu mooy question bi est-ce que lii mën na ne ah baax na damay bàyyi euh, gaa yi xalaat ndaxte nii fii de koo fi bàyyi kenn keneen fan la war a jaar sax. mi ngi noonu bàyyi may bàyyi internet yi eh, réagir eh, ci suñu plateforme yi Facebook Twitter wala Instagram maa ngi gis gars ngi commenté ci suñu page Facebook bu télévision Futur Média eh, YouTube bi aussi am ngeen possibilité commentaire joxe seen xalaat ci question yi nga xamante ni aussi dañ ko fiy posé mais surtout participer ci émission bi ndaxte am nañ possibilité jël seen ay commentaires daal di koy partagé tey on sera très foot dinañ ci ñëw wax naa ko sànq annoncé ko ak actualité yi nga xamante ni mooy xew ci euro bi. euro bi yéen a ngi koy seetaan d'ailleurs ci télévision Futur Média commentaire bi ci ñoom Malal Junior Diagne plateau yi Mame Fatou Ndoye and Co ak Cheikh Tidiane Diaw am na ci yu am solo yoo xam ne ñu ngi leen di xaar fii ak euro bi di jeex waaye dañu leen di baaxee vidéo bii nga xamante ni benn internet moo ñu ko partagé xam naa nii lañuy ñuy seetaanee euro yi wax nga dëgg de soxna yi de bu ñu leen nar a sonal rek dañ leen di ut pexe wala ngeen génn kër gi dem seetaani ji ko feneen acca ñu tegal leen vidéo bi. Nothing can stop me. I'm all the way up. <laughs> Pierre ndax d'accord nga ñu def nii boo naree concentré wu fi ne nii de kër yi moom ah nii lañuy ñuy seetaanee euro ah waaw ah, bu ñu naree compliqué rek ñoom soxna yi dañ leen wutal pexe xam naa ni kii solution bi nag dafa xaw a doy waar mais am na yeneen possibilité. génn dem ci sa gars yi naan Chine di seetaan euro bi wala wut pexe daal mais kii moom solution bi mi ngi noonu nekk na lu lu lu am solo euro bi d'ailleurs ci lañuy des démb euh, France dafa gagné ñii di waa euh, Allemagne mu nekkoon match bu am solo match bu am niveau waaye image bi nga xamante ni moom la ñëpp di partagé mooy image Antonio Rüdiger di ab allemand bu muy matt matt lañ ko jàppee Paul Pogba. mu nekk image bi nga xamante ni ñëpp a ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi ndaxte bariwul li ñu koy gis ci football gëj nañ ko gis depuis ca jamonoy Suarez ca coupe du monde bu 2014 ba. mu nekk lu yéeme d'ailleurs waa UEFA génne nañu ab communiqué ne amu amuñu ci benn daan bu ñuy teg kii di Rudiger ñoom ñaar d'ailleurs bi juste après bi match bi jeexee waxtaan nañu daal di euh, wax ni dara amul ci seen diggante ci ñaaw mi ngi noonu. Euh, message baa ngi noonu ngeen gis ñoom moo Paul Pogba mi nga xamante ni démb moo nekk homme du match d'ailleurs def actualité bi juste après match bi ci conférence de presse d'après match bi def na fa benn euh, joxe na fa benn image bu xaw a yéeme bariwul lu ñu koy gis mi ngi noonu lii la def dafa jël euh, Heineken bi nga xamante ni mooy sponsor ci euro bi daal di koy tegg ci table bi mu daal di wuy ji kii di Cristiano Ronaldo dinañ ci ñëw mais juste après ñu won leen image bi nga xamante ni actuellement internet yu bari ñu ngi ciy commentaire ku nekk di ci joxe sax laaj ci réseaux sociaux yi. voilà. Euh, Paul Pogba teggi butéel bi nga xamante ni mooy euh, boisson bii di ay na Heineken nekk sponsor ci euh, euro bi mu nekk image bi nga xamante ni ku nekk ci commentaire waaye dafa fekk ji lu ko jiitu kii di Cristiano Ronaldo mi nga xamante ni actuellement mooy meilleur buteur ci histoire euro ak 11 buts nekk koo xamante ni mooy joueur bu ëpp li mu participer ci euro cinq moom Cristiano Ronaldo mi nga xamante ni actuellement moom tey jii teg Euh, démb d'ailleurs ci seen match bi diggante ak Hongrie moom Portugal gagné ko trois bu à 0 moom Cristiano Ronaldo dugal na ñaar waaye juste avant match bi ci conférence de presse dafa def ni Paul Pogba waaye moom da koo def ak ñii di waa butéelu boisson bii di Coca-Cola mu daal di koy teggi daal ne Coca baaxul da leen naan ndox ñu dégtal leen image yi ngeen ñëw ñu commenté ndaxte. tey jii ci suba si ay xibaar jib na ni perteloo na xaalis bu baree bare ñii di waa Coca xanaa moom mooy influenceur bu mag bi. voilà mi ngi noonu dafa teggi ñaari butéelu coca ne. Euh, joxe exemple ne ndox moo baax ñu si bari doon ko rafetlu ndax nee nañ dafa am hygiène de vie waaye euh, tey jii ay xibaar jot nañ ko ni euh, waa Coca tey seen marque bi dafa chuté lu tolloog 3,29 milliards d'euros ci bourse ba ca Amérique nekk na lu yéeme di wax ni degre bi joueur bi toll ci mbirum influence mi ngi noonu mi ngeen di gis ci bourse bi Cristiano Ronaldo ci gestion boobu mu def ci quelques secondes rek tax na waa koka ñàkk ci koppar gu baree baree baree. ba euh, tey jii xibaar yu bari ci réseau sociaux yeeg internet bi en général ñëpp a ngi koy partagé partout dans le monde euh, te pourtant Coca sponsor la bu mag ci euro bi euh, waaye jour bu mag bi moom tamit tax na ñu perte koppar yu bari ba ci réseaux sociaux yi ñëpp a koy partagé ndoo nekk na loo xamante ni aussi ku nekk a ngi ci yëy yàbbi en quelques secondes la rek. mu def ab euh, buzz ci réseaux sociaux yi moom euh, Cristiano Ronaldo euh, bu ni bu yàggul démb Paul baa def na lu ni mel tamit ba ñenn ñi di ñaxtu ne waa UEFA war nañ ci jël dogal ndaxte ñi ñuy teggi seen image yi mën nañ ko jàppee ndax dañuy bëgg visibilité tax ñoom ay sponsor lañ dañuy dugal koppar gu bari débat bi nag mi ngi ci réseaux sociaux yi ci internet bi partout dans le monde ku nekk ci commenté tey nii la internet bi xëyee. Euh, ñu daldi di jeexalee mbirum football ak image bi nga xamante ni en temps réel la ko benn euh, internaute daal di partagé après ñu ñëw. Ah, Euh, dafa mel ni Pierre da Silva rek mi réalisé mi ngi nii ànd ak man rek benn xale bu xaw a yaree di ko ni man jàpp Pierre di ko fowe nii jaajëfal leen internet yi gis nañ vidéo yi image yi dañuy dajale yenn yi rek daal di koy mën a partagé ndoo ak yéen wanaan leen image bi ndaxte internet yi naan ku ne naan lii mënul nekk ku ne ku ne di joxe solution mooy image bi nga xam ne bàyyi nañ ko fi euh, benn internet moo ñu ko partagé lii ba xam ndax mën na ne wala kan la ñuy jox priorité ci voiture présidentielle auto police ak ñii di euh, auto bu voiture euh, bu waa pompier possibilité bu ni am bu amee kan moo war a am priorité bi Pierre wanaat leen image bi ndaxte maa ngi jàkkaarloo commentaire yi ku nee naan lii mënul am ñi nee nañ police ak sapeur pompier parce que la priorité à droite maa ngi xaar seen commentaire yi am nañ possibilité même bu émission bi jeexee wax nañ ko li xew ci biir internet bi mooy seule émission boo xamante ni euh, avant la pendant ak après même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité dem ci suñu yi daal di ci joxe seen ay commentaire ñu daal di koy dajale choisir ci kenn yóbbu ko ci jili CSB ma nga nekk rond point cité kër gi image bii mooy image kashe yomb na nag image cachée bii yomb na de lii moom yomb na hmm? non lii yomb na lii dafa yomb maa ngi xaar seen ay commentaire te lii waaw bokk nga ci kay réalisateur bi nee na bokk na ci affaire yi ndax dafa bëgg euh, ñu tànn ko mu yóbbu euh, yóbbu ko ci jili CSB téléphone bi ñu ko fay jox mu jox ko doomam moom euh, Pierre Da Silva ci émission bi la bokk jaajëfal leen yéen téléspectateurs yi internet yi dañuy jeexalee ak image bi nga xamante ni suñu benn groupe bu nekk bu groupe page Facebook bu influent bu nekk ci eh, réseau sociale bi di Facebook de luttons contre l'indiscipline des Sénégalais bari na ci ay images yu bari ñuy partagé ñoom tamit dañuy eh, trouver ay solution ci yenn doxalin ci réew mi am na benn eh, commentaire benn témoignage bu fa benn internaute posté lu am solo la ndaxte ñu bari dañuy dund situation yu ni mel wan ñu ko Pierre kii dafa jox ni dafa dugg ci tata bi. Euh, mi ngi koy seet kon baax na fii am nañ possibilité même bu subaa ñu partagé ko ndaxte euh, dafay ñaaw lu chauffeur yu bari yi nga xam dañuy yor transport en commun téléphone portable di yàq seen dawal te temps yi ñi ngi wax wax euh, ñi ngi waxtaane mbirum accident yeeg yeneen ak yeneen ci yoon yi mais kii dafa dund expérience bi daal di koy partagé donc ak euh, internautes yi te lu am solo te ñun tamit ci émission bi dañuy alerter moo tax lu ñu mel war nañ gën di ko alerter ñaax bu baax chauffeur yi nga xamante ni ñoo yor chauffeur yëpp transport en commun ak yeneen di dawal yor sa téléphone di audio concentré woo bu baax ci li ngay dawal ñu bari dañ koy dund. bu njëkk ba dañ ko doon partagé ak di wax ne dangay dawal ba pare nekk ci snap yeeg nekk ci réseaux sociaux yi waaye suba dina leen indil yooyu nekk na loo xamante ni vraiment war nañ ci gën a mën a ñaax ñii di euh, téléspectateurs yeeg internautes yi ñaax ci sénégalais yëpp ndaxte euh, dawal dafa ànd ak concentration yeneen ko gën a xam jaajëfal leen jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi jaajëfal internautes yeeg téléspectateurs yi euh, réaction yi mën na continuer ci suñu plateforme yi Facebook live YouTube live même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité commentaire ci suñu plateforme yëpp ci Twitter def leen hashtag sunu net commentaire bu ci nekk dañ ko gis daal di koy partagé ndoog ak yéen caaw jox leen eh, dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi.